Africa Supermarket, Bazar Shop, Bean Seduction, Rama Restaurant vous offre Yeg Yeg, Crise conjugale. Bean Seduction. La séduction est un art chez Bean Seduction. Venez vous faire plaisir par et pour la séduction. articles divers de beauté, d'élégance et de fragrance.

produits divers et frais. Retrouvez-vous en Afrique par des voies culinaires proposées par African Supermarket. Oui, mesdames et messieurs, pour vos besoins en cuisine et produits africains rares, une seule adresse vous est proposée en fiabilité et en traçabilité. African Supermarket. Oui, retrouvez-vous en Afrique de l'Ouest depuis les États-Unis d'Amérique en faisant confiance à une seule adresse, African Supermarket. situé au 3639 East Livingston, avenue Columbus, 43 227. Téléphone 614 ou appelez au 614 620 4203. African Supermarket, tout ce dont la diaspora a besoin, ça se retrouve à Thank you. Incroyable La destination de Luxury Home est maintenant plus envahie que jamais. Les rénovateurs d'espace, les amoureux de mobilier de maison et de bureau, les passionnés de décoration d'intérieur ont tous choisi Luxury Home comme l'endroit idéal pour trouver des articles qui les ressemblent. Vous voulez une chambre à coucher confortable et conviviale où vous passerez du bon temps avec votre bien-aimé Luxury Home est la destination qu'il vous faut. Nos

USA Bazar Shop. Voici votre boutique qui fait la différence dans différents domaines, mesdames et messieurs. Une boutique pour votre bien-être. Il fallait y penser et c'est pour vous servir en ce sens que USA Bazar Shop s'est basé à au Sénégal pour vous servir et servir l'Afrique avec des produits à des prix imbattables et un service de qualité. USA Bazar Shop pour vos colis d'urgence GP Sénégal USA pour vos produits d'hygiène, de beauté, de santé, la décoration et l'entretien situé à Norfoire, Dakar, Sénégal, côté de la Brioche Dorée. Recevez et envoyez, mesdames et messieurs, vos colis en 24 heures. Efficacité, sécurité, traçabilité, c'est USA Bazar Shop. Numéro de téléphone 78 449 22 73. USA gars yi daal ba ma fa demee ñooy defari daal di ko jaay ma teg samay daal ñu sàcc ko nii la daa toll ci waa ngaay def na luñ xamut de. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ça nga def. waa Tiba. Andi Ndeye moo fi. ci lu ma niitee nii. yow xanaa amoo ay yére. lu xew. yére yu xottiku yi nu ko nit mën a sole lu sa yoon. mais Zol daa de. yow sax yow la kan fan nga jógee ak sa demo de. kan moo débordé. yow. mais yow da ngaa réew de xamoo sa bopp de gis nga duma sa morom bu fekkee yaruñu leen yéen goney taax lan moo tax joxu leen mag cër. mag mu yaru lañu jox cër. xoolal mu xamadi nga yow. misil boobu bu génnaatee sa gémmiñ ma dëgg sa xool ah. ma ma eh, xamadi xam nga lu ma eh taxawal waaye xoolal bu ma dee dëmm bu may nooxoor sa gat newu ci ku ëppal nga yow. bu dee yaruñu la na nga sa reewandewu na nga ko jël yamale ko seen biir kër man duma sa morom te kër gii ngeen bëgg a def càpp yaay seen dugg génn fii maa fii kilifa li ma fi bëgg mooy am papa bi ngeen di ñurum ñurumee di dugg ci këram gi ku ne di dugg ak a génn ngeen débordé wu mel ni ay xorondom ndijaayam laa li ma bëgg ci kër gi mooy dox man papa yabuma yéen du ngeen ma yab est-ce que dégg nga ma yor dox ak sa taatu gàtt yi ah indiscipliné ca xaj yow xam nga lu ma lay yëgal maa la woon sa nijaay nag dikk na ci kër gi bëgga lal la ma lalli woon naan doomam la bëggal paap te man yow mii laa bëggal paap paap yow mii laa bëgg mu takk la sab nijaay nag neena doomam lay may paap kon yow yaay su ma déggulee yow yaa ngi sama digganteeg sëy ak papa ba tey waaw eh, yow xanaa yow tooguñu fii ma ne la yaay man sëyu mag papa tey sëyu papa suba papa nee naa du ma sëy moom ndax seexlu naa ko àdduna neex ba ma sëy ak moom bu yow nga génnee ko sa bopp bi nag sëyu mag moom xam nga lu ma la yëgal sa moroom gis nga li ma la wax mooy am yéen ba àddinay baax danga nga daan da nga daan muur rek yóbbu la man mii di sa ndey ci sama gannaaw day lan may lan ma jëlee teg ma ci duut boo xamut duut moo dig mbaam samay tànk di lab-labi ba ca néegu ñax ba nu juppeel ma sama ndey di laaj te ñu ne ko kër jëkkëram la jëm tegu ca baat ba àddunay baax dañ la daan wax demal sa kër bàjjan wala demal sa kër nijaay wala ñu jëlee la sa kër nijaay indi la léegi nag yéenay régler seeni sëy ci mbedd mi moo tax sëy boo ci gis du am ñaari weer du am ñetti weer ay million ngeen di yuutu ay cortège ak marias bu ko defee ngeen torox ba ne tot déggalatu leen seen ndey yi àdduna nag mi ngi seen kanam ndax seeni valeur ak seen i coutume lépp ngeen del ak valeur yi xamatu leen fu ngeen di teg seen tànk. yaay loolu seen jamono nga wax mais ñun suñu jamono ñun romb nañ loolu sëy maag papa nag bu yow nga génne ko sa xel ngeen teel ko génne seen xel te xam ne du am. papa ngay sëyal tey moom ngay sëyal ëllëg bu sama ruu gi rotul lay takk. waaye yaay bañ toll ci dafa dindi maa ngi lay xaar nag loolu. bañ toll ci dafa dindi sama nijaay moom maa ngi def fekk ci biti wax ak moom li may wax moom. dama nag sa gàttaay boobu mel ni non ñetti araf kii lu baax ku déggalul sa ndey ku ne lay ku demul dibéeri Muhammad di dem àllal bay firaw na ndey laa seet yaa ngay seet dafa rotation laf cat jonga ma nga yow lii saw taata yaa ko moom abuma fi dara indaale lu ma yor maa ko moom ah félicitation félicitation waay euh, tam xarit bu disponible non non da ngeen di occupé yéen kay ni ngeen mel faaw ngeen occupé ku la ci romb ak wu ah. naa ngi ah. kii de su ma ko amoon bu ne du ma xëy du ma goon chaque jour sur le plat laa koy def teg ko nii yàlla mën a bind ñun nag dañoo war a def coalition ànd marche ñun paa yi yëngal dëkk bi ñun suñu jamono lii amul woon wax amul woon. booy ci jamono ju baax yii ans ci benn waxe dama sonn ma feebar sama bopp bi mooy metti tëdduma sax papa yee ma ne naa defaral nijaayam ndékki hmm. nga ne papa moo la yee nga defaral nijaayam ndékki te mu xam ne yow da nga fanaanoo liggéey mbaa du mooy lu wow lu gudd li ma romb ci ci ci véranda bi mu tëdd. ah gis nga ko. kooku de lekk rek la ma def waxuma dara mais xeetu caga gi ci moom mag bu ñàkk fay daañu nii. baa de li ci gën a grave mooy dafa dëkk si dégg nga. <coughs> dëkk si walla gane si. te suba bu xëyee di influencer papa pour mu takk ñaareel. papaas papaas kookan la man la nabu nabu man doomu ma sax xamoon naa ne yaay ñëw lan la xamoo lan la yéen yàgg sama yaay li ngeen nekkee mooy la sëy ak bi ngeen di wax laa bëgg ngeen jël ko teg ko ci suuf ma loolu moom ma fi indi yow mi fuu yi nga de xamoo sa bopp de kon man dañ lay may papa papa dalaa bëgg yow li ne ci yow say défaut daa bari yow ñuul nga ñaaw nga sa bopp locciku ah say bët xóot say nopp folooral say yel sew nga mel ni kan ñu naa ma dañooy may papa may ñu la papa jàmm man nag li ma jaaxal mooy noonu lañu audacieux bi dañuy ñëw sa kër nga yaatal leen pour yow dañuy gane si ñu ne dañoo dëkk si léegi yamuñ ci dëkk ñu dañuy influence sa jëkkër mu yut beneen jabar pour dañoo xam ñoom yow noo toogee dañoo xam papa lu mu yoree këram gi ah yow daa xam nga lu ma lay xamal dalal sa xel te jàpp sa ñaam bi waxu ñaareel moom xaw ma ku koy wax ak ku ci tugg mais papa leen na man nekku ci boppam bu kenn déstabilise nag papa de musul takk ah comme xam nga ko rek baax na fexeel ma <laughs> man koy dama fi jaaroon donc pour xool noo toogee mais comme da nga jëmmant dama lay bàyyi nga jooy ma nelaw après on se yëpp intéressé wu ma li ngay wax ni intéressé wu ma yéen xam nga la ngeen war a def yow sama yaay ngeen génn ci sëy jàmbur bi ngeen génn si ba set man waxuma loolee papa xam en tout cas leen benn xam naa ko yéen papa bu bëggee takk jabar du yéen a koy takkal jabar xam na fu ñuy takkee ñaareel xam na fi ñuy fi ñuy ñaanee ñaareel yaa may dégg bu baax. voilà yéen lan lan mooy seen point ngeen jógee dëkk ba sëy seen sëy ba mu ràpp ñoo bëgg dugg ci viwu xale yi man jotuma sëy lu bari sa yaay moo sëy normal loolu lépp sama yoon nekku ci génn leen ci da ngeen gis mbokku ndey bu fiy dugg gauche droite mbokku ndey kenn dafay sañ a man sama kër jarbaat laa ne kër jarbaat ba ci lan day tax ngeen ñëw di ruubee kër gi fi laay ne yow baa mel na ci soof fabal sa yaay nga yóbbu xam ne du ngeen fi neexle toute façon li ma wax sama yaay ci biir loolu laa lay wax may leen ñi jàmm ngeen génn tuuti may leen ñu dund seen intimité man loolu moo fi indoon te loolu laa doon réglé jeex sa taat bu gàtt ngay mel ni cokkeer ratatatatat mel ni métti bëgguñu la du ngeen sëy fi bëgguñu seen raas seen façon lañ bëggul yoon newu ci man dugg ci kër gi ñu lay fuyate di la làmb toog di kon jël nga ci yooyu bu yàgg. dama yaakaar ni paa bi hmm. de dem naa fa waaye dégg naa fa loo xamante ni nii dootuma ko nettali. moom kay ku fa dem di nga dégg. billaay wallaay. wante xoolal sonnatu ma ci comme maa ngi numéro ndey. su ma ko nammee woo ko wa ilaa ñu daje ci tournage kaa bu ñu bëgg a ko. paa bi damaa jaaxal. noonu la mel ak mën a dagg sant ci góor ñu nga gisee noonu nag <laughs> ponkalu maamu caga la ay je te jure pas pédophile la de ku la bàyyi heureusement ba seen kër amul ay xale sinon xale yëpp lay yàkkataan xam nga Sénégal moom neexut a waxee ah, li nit def yëpp boo ko waxoon ñu bàyyi àddina jàpp la ah maa joom yi ma amoon lu ma seet damay xëcc nday wax ko li paa bi def yëpp xam naa ne yow ndeykat xam na ju koy paa bi nga ne daa ba kenn daa bëggul kenn nday xam ju koy paa bi aw koo xam tamit daal mi ngi noonu. waaw léegi yow. en parlant de paa bi. ma ñëw dénk la paa bi. ñeex rek mënu ko. Hmm? génn bi sax dañ ñeexitu nii. jabar mënta ñeex. ñu ngi bañ jigéen di mënta ñeex. yaa ngi mbir nga xam ne togg kii baaxul. foo jëm. dafa ñaaw ku ñaaw day gaaw a gedd. nii la ay eh, da giirug dof la. Hmm. c'est la famille Fall di lépp ya wax. Hmm. lu la koy wax ngay gedd ka mer. ay xoole. Hmm. moo wérut rek wérut. na saayat boo xam ne boo ko takkee jabar mënoo ñeex mënoo dara ñeex ak ni mu yombe ni muy ñeexe ci la façon gu ñeexinam Guinée Bissau sax day ñeexitu noonu waaye bi façon gu ñeexit mosuma koo gis li nu yërëm ñeexum kaldu yëpp yëggut gën a bi sa jabar mën ta ñeex dégg naa may su ma jox la paa saabu paa dikk nga doxaanante ak moom de la koy doyee mais yow leen na ne Pape mayul nday jàmm ci kër gi. waaw loolu moom dëgg la. mën ko bëgg a dénk. nga traité ak moom comme ça nday nekk ci jàmm. tant kaa ngay teg de. defal hmm, de de toutes les loolu de am na. Ah, baax na. te genre pas yooyu la dañu may xaalis de. mu taal ay suga daddi la doon te def la naan dawul wala moom naan da fekk géré yëpp. naa ko dox. sérieux yaa gënoon dafa ñëpp xam na nga lekk naan <laughs> mu koy dox. <laughs> waaw baax na. paa bi ci sa baa rek paa di ko ah tam déedéet boo mayee baa tey suba nga def su fees mm. yàlla bokk laa robe ambulante du ma laal loolu lijaay yow as añal añ dafa am du takk wax ju bëri koo <coughs> ñal jox la nga naan de mm. ay ku kaani lii kaani la ilaha illallah waaw doo ko def fekk na ma gem bu kaani man damaa yore estomac wa illa liqaa daa la wax la woykat bu ko siré mar naay mariage may ko ndox mu naan biir jafte wut ah, biir bu yàqu sax amu ko kii day bay ëmb lii <laughs> lépp waxoon naa leen ko samba raxmaani jiba jaxate kay ne wuramba hmm? hmm? hmm? bul gàññi lekk bu neexee waroo gàññi euh, kii ndey ndox amul foofu jegewul bul naan yi koy <laughs> benn tub bu ne foofu mu ànd ak ndox seddee baax na de Héritage Couture. Africa Supermarket, Bazar Shop, Bean Seduction, Rama Restaurant vous offre votre série Yeg crise conjugale.